oh là gaa yaa ngi yàq rang bi Amadou bu ma sori bu ma sori booy bu ma sori de oh gaa yaa ngi yàq rang bi. même gendarmerie si gaa yi mais fii doy na waar de. tournel ma bi garaaw na garaaw na xaaral xaaral booy non waaye dugg nañ ci camp gendarmerie militaire yi ñëw nañ mais mënuñu ci dara non non non Vai, mais camp bi daan na waar de. gars yi nangu nañ camp bi tey. affaire bu garaaw. ça disait Viya Diawé. disait Viya Diawé. il disait il fait ça. il fait ça Viya Diawé. libérez les otages politiques. de cette situation. militaires yi ñu ngi fi mais waaw waaw lii dafa jot. bi lay walaay. gàll gi ñu tàngaay gàllal ma nga jongala ak gàllo. oh po po. dañu la dañu jongala ak gàllo. da ngeen a sonn yéen ah. waaye gars yi gis nga ko. moom la ñu ngi gars yi envahir nañ gaa bi. oh boobu. sans office yi à Diobé. waaye jàpp nañu biir gàll. waaye jàpp nañu biir gàll. gaa yàq nañ camp bi. militaire ñu ngi nii mais réagiruñ réagiruñ réagiruñ li na trop billaahi wallaahi day na waar. mais lan ngeen di daw Abi. Taxawal amul taw. ci filmé. oh foofu gars yi nangu nañu gàncax ah. xaaral yow doo taw. taxawal rek yow teel na taxawal waaw naa ngi filmé ma. waaw xaaral de xaaral. dara bul daw. waaw. lacrymogène lacrymogène lacrymogène du dara booy du rey. ñu demee bi àjjana gars yi dugg nañ ci camp bi nangu nañ camp bi. baatu bi baatu bi baatu bi baatu bi. oh bien ñu tàgg de. yaa ay jaabe neex na ay jaabe neex na ay jaabe neex na. xoolal xoolal bi yaa doy na waar doy na waar doy na waar doy na waar fii dafa mel pare que dañoo am fii benn blessé vraiment doy na waar doy na waar trop militaire yaa ngi arrangé gars yi wala militaire ndeysaan ñoom dañuy arrangé. militaire dañuy arrangé ndeysaan. oh Ibu Ibu Ibu lañ jëlee bal Ibu Ibu Ibu Ibu Sarr lañ jëlee bal. ah ay bal lañ gis de ay bal blessé yaa ngi bëgg a bari. dama dama dama. affaire bu garaaw moo xew Diaobé tey affaire bu garaaw garaaw ay bal lañ koy dindi bal yaa ngi jóg gars yi dañoo nangu caabi. gars yi dañoo nangu caabi. vive la liberté. vive la liberté. ñun dañoo sonn. am na ko am tiire nañ ko bal. commandant Diallo bi. affaire bu garaaw. Diallo Diallo Diallo waaw li am fii tey yéeme na yéeme na Oh, la la. Macky Sall dimbali ñu. waaw. Macky Sall démissionné na bàyyi suñu nguur bëggatuñu la. on en a waay. vive la démocratie. vive la liberté. mais ay bali pistolet la ñuy dóor di taw affaire bu garaaw. nag. ah daa ba tey mer nag. mer nag mer mer nag. soo tot tot. jotul daaw. yow man li ma la teel a. tot tot tot tot tot. waaw tey li xew ñëw la garaaw na. allahu akbar. gars yi nangu nañ camp bi carrément carrément. Eh, gars yi ñu ñëwaat gars yi ñëwaat. mais ñu ngi ñëwaat. gars yi ñëwaat gars yi pareeguñu. gars yi pareeguñu. dañuy delluwaat. ay waay ay waay ñoo leen gëmee fii. ay waay. vive la démocratie. Ayoni. Oh. non non non avancé rek ba toog fii da ngay gérer fii kay fii kay bokkul fii yëfi Sénégal fii yëfi France dem leen ñaari bal ay bal ree leen toog amagul fii la bal ñaar fii lañ door daanu nañ bal bal gars yi dañoo nangu camp bi carrément. ah dégg nga affaire ah nangu nañ camp bi carrément. parce que militaire ñaa fa militaire. mais bi seen nekk militaire duñu réagir militaire duñu réagir waxoon nañ mais li xew fii yéeme na li xew Diaba yéeme na ah. ay waay libéré leen doomu jàmbur bi. tëb tëb tëb. dama faaw ma dawlaat Karama parce que dama fa bàyyi dalul xel. li ma bàyyi Karama dalul xel. gars yi dañoo bëgg na ñëw toj fii man leen non non fii moom mooy loolu yëfi Sénégal la ba leen ko fi. ah non non non bàyyi leen boobu. gars yi taraanga rek la ñuy dugal sama Facebook da nga am. xoolal maa ngi nuyu naa ñoom. waaye ñaari bi. 1760. camp bi moom yàq nañ ko saa yéen gars yi toj nañ lépp ko dóor caa bi day gën a garaaw. oh po po po. mais tey jii caa bi li fi xew naa noonu. am dañuy dalaat temps ba de. waaw ndam. Pape yooyu doo doo est-ce que est-ce que doo ko est-ce que bàyyi bi. non man na ma ko direct nii Facebook. waaw waaw. bon tey lii moom mooy wane ni population bi sonn nañ vraiment vraiment. population bi sonn nañ sonn nañ wax dëgg yàlla. ah mais lii rek moo la. non waaw waaw waaw. wax rek. ah. waaw kii bu nga laal. wax naa leen. mais yow Amady yow. yow xam nga ni. yow wuy ma yow nga woon non. non man APR nga woon. yow campagne bi gis naa en deux mille. mais noo gisee situation bi actuelle. waaw. waaw. waaw. oh kii dafa blessé oh là là kii dafa blessé ah. kii jël na bal kii jël na bal dafa blessé. gars yi ngi na meer yi xool la fa jot a xew. man damay am na lu ñuy signalé ko doon ne. am na lu waaw waaye ñoom jëli foofu noonu ñu xool. waaw ah, mais mujj naa yéeme daal. mujjee naa yéeme. ay jawbe ay jawbe. Ah, waay waay waay jawbe attention attention. ah li am fii doy na waar doy na waar oui oui sama table sama table tonton day yàq. yaa ngi taal forêt bi. taal lañ table yaa ngi taal forêt bi. sama tonton taal lañ table bi. li ma gis nii mi ngi bëgg a doy waar de. attention moom mooy fañ lañ jëm. ay waay gars yi taal nañ forêt jawbe bi. man ko gars yi taal nañ foore jawbe bi mais li may gis nii yéeme na de xoolal kese orange mu nañ lii lan moo ko fi jar kese orange mu nañ kese orange mu nañ daane na leen ay waay ay waay sa foore jawbe bi gars yi taal nañ ko ay waay yow yow oh la la ay waay mbir mbir yaa ngi bëgg a doy waar mooy doy waar kay mbir yaa ngi bëgg a doy waar foore bi taal nañ ko jawbe ay jawbe ay jawbe ay jaay jaay taal nañ foore jawbe bi courant bi courant bi courant bi oh tey tey nit ñi wane nañ seen bopp yaa ngi naan station ba la jëm station Selma. amul problème amul problème ñoo far. bu dee kenn ragal ñoo far.